APR. Mmh. wax dëgg yàlla ci jafe-jafe yi réew mi am ci at yi moom. Mmh. wuñ jikko ju rafet ko mmh, alors euh, mu mel ni tamit euh, bu yu mel ni amee ku si nekk da ngay analyser euh, mu mel ni bokk na tamit ci raison yi nga xamante ne xaw nañu ko yaakaar muy signalisation bi nga xamante ne wax nañ ko ni dañ koy def fële ci CPI ginnaaw li nga xamante ne jot na fi jàll aussi ci manifestation yu metti yi mu am ay mort et tout vidéo yi nga xam ne kii Sonko daal na koy dajale wax ni dafay euh, def plainte ci CPI euh, jot na def signalisation bi alors euh, loolu tamit est-ce que bokkul tamit ci li ko poussé à ce que mu mu ragal que manifestation mën na mën na wax ni tey day bokk manifestation amaat fi moor yi gën a yokku dégâts yi gën a yokku mu gën a plainte bi ak signalisation bi gën a diis ci dam ba tax mu daal di aussi en arrière. xam nga man man xam nga lan moo ma yéen journaliste Sénégal yi. Euh, nga euh, mm-hmm. nit warul di nangu di jottali bàyyam aw saaga. Mm-hmm. te Franck Branco day saaga Sénégal ku saaga Sénégal ku ne sa baay la saaga sa ndey la saaga. Mm-hmm. cest à kenn ci yéen waru a nangu di relayer propos yooyu xale boobu di wax mais le pire ay journalistes même di ko invité seen émission c'est un scandale c'est un manque de respect des journalistes au peuple sénégalais nit ku dëkk ci Sénégal warul nangu di jàppale kuy ridiculise son pays et lui il nous mais le pire il nous ridiculise mais en même temps day réer dafa bëgg a dëgg parce que Sénégal ñi fi faatu 2021 mm. ñi fi faatu 2023 kenn nit moo leen rey muy Ousmane Sonko ah lan moo tax ci fenam la faatoo ay fenam ki la ñu faatoo deux mille vingt et un bi ko Adji Sarr porté plainte mm. lan la jëkk a wax xaw ma Adji Sarr dem salon de beauté boobu mm-hmm. ñu toog tuuti mu dindi ko ne mas naa faa dem booba la wax ak Ousmane Sonko waroon a jeex ñu bàyyi ko muy fenn Sénégal yi naan feebar ma fa yóbbu te ku ne xam ne ne Adji ak ak euh, comment il s'appelle Ndeye Khady Ndiaye duñu ay fajkat mais li gën a kër góor gi mu dëkk am na ñetti barab fajukaay yu fa nekk yoo xam ne ay professeur université ñoo fay faj am na ci boo xam ne cabinet moo ko dal loolu la ñuy faj mu bàyyi ko fa ci wetu këram la nekk mu bàyyi ko fa dem ci xale yu jigéen ñi di ko bës bi ci des mu ne dama amul xaalis moo tax ma daa ma du fa dem ma doon dem ci ñoom ñoom Adji Sarr mm-hmm. fi mu cabinet bi nekk ci wetu këram dix mille francs la ñuy fay la séance boo dee député deux mille ngay fay assemblée fay huit mille yi te dégg nañ benn bis te këru Ndeye Khady Ndiaye ne Adji Sarr jox na ko cinquante mille francs ne Ousmane Sonko moo leen ko jox kon nit ñi waroon nañu xam ne la ne moo ko fa yóbboon day faju waxul dëgg mu teg ci ne nag dañ maa complot ne Macky Sall Antoine Diome ak sëñ Bassirou Guèye ñoo ma complot ngir mu bañ a bokk ci élection ay fen yi neen la parce que loolu waa ko ne mbir soo ci bëggee génn da koy jiiñ Macky Sall ak Anto da nga koy jiiñ Macky Sall mu jiiñ ko Macky Sall ak Antoine Diome ministre de l'intérieur ak sëñ Bassirou Guèye procureur ay fen yooyu mu ne Sénégal nañ wàcc ci mbedd mi xeexal ko ngir mu bokk ci élection yi Sénégal yi wàcc ci mbedd fukki nit ak ñeent faatu ci ay fen ñu porté ko plainte ma mbay porté ko plainte Adji Sarr porté ko plainte mu ne du dem tribunal duñ ko atte duñ ko condamné woote bëkk démb keroog Ziguinchor mu ne day woo Sénégal yi le premier pour ñu wàcc ñëw Ndakaaru fekk ko fi pour balaa 16 heures mu daanee Macky Sall muy terrorisme insurrection tentative de coup d'état. terrorisme c'est pas trop dire quand même. terrorisme. Mm. xëy na sa da nga sa doom daa sa mbokk daa faatuwul ci fukki nit ak juróom-benn yi faatu. sa mbokk da cee faatuwul dama nag sa mbokk faatuwu ci. sama sama mbokk bokk na ci. waaw xaaral maa ngi rek sa xëy na da ngaa bokk ci 300 chômeurs yi nga xam ne seen seen liggéey daa yàqu ci Auchan. Mm. xëy na da ngaa bokk ci ñi nga xam ne seen i milliards dafa yàqu. xëy na état bu Sénégal maanaam BRT bu ñu yàq de la nekku sa yitte xaar mag rek xëy na TER bu yàqu da du sa yitte xëy na université buñ taal da sa yitte xëy na sesti euh, gu ñu lakk du sa yitte xëy na directeur de ko du sa yitte bu doon sa yitte euh. buñ ne Ousmane Sonko li mu fi def si terrorisme doo ci teg baat xaar mag rek xaar mag rek bi ñu def moom moo ne maa ngi jëm ndakaar balaa 16 heures nañ daal nañ ñu tàggale Sénégal ak Macky Sall mooy coup d'état terrorisme ak coup d'état appel à l'insurrection yooyu yëpp Ousmane Sonko da ko def loolu moo indi fitna ba fanweeri nit faatu ci ay milliards yàqu fi kon bu amee ku ñu am nervi bu amee ku ñuy war a yóbbu CPI kenn nit la mooy Sénégal duñ ko yóbbu CPI nag fii lañ koy atte kon encore une fois bu leen ridiculiser seen réew bu leen yàpp seen réew ab saay-saay mënul taal réew mi ngeen bëgg ay jël coow yoo xam ne amul benn sens bëgg ko teg ci kaw coow loolu ba dëgg réer loolu c'est de l'irresponsabilité et malheureusement la presse sénégalaise et depuis le début de cette affaire Ousmane Sonko jusqu'à présent vous avez fait preuve d'irresponsabilité lu am ci réew mi ci yàq am ngeen ci am ngeen ci rob parce que bu ngeen ah, defoon seen enquête yi ngeen waroon def mm-hmm. gëstu yi ngeen waroon def mm-hmm. dana teel ngeen xam ne Ousmane Sonko day fen da xaar ma da ngeen xam ne day fen kenn yóbbu kenn kenn si de kër góor moo fa doon dem def caaxaanam ba ba ba dal bi yës ci problème mu ma mbay. mais tey mais tey xaar maa ngi xaar maa important. boo ñëwee ci mbirum mbirum ma mbay. waaw Sonko la presse yor portable naan yor naa document boo xam da ko takkal ci 29 milliards. mais muy fenn neen. porte plainte ma ne ko ñëwal tribunal indi document. est-ce rek waa dig woo ne ko sëñ bi document bi nga ne yor nga jox nu ko bu ko defee affaire fa lay yem parce que bu fekkee diffamation bu la nit ki boo ne yor naa document bu koy taxal mm. nee na document bi ngi ci mi ngi fen document bi amul moom moo doon yàq deru ko bi ci ci wolof mooy fenn wu ànd ak yàq deru deru deru as góor gis nga bu doon ci lislaam dañ koy jër maanaam ñeent fukki juróom-ñett fukki yar lañ koy dóor bi ci rek mooy dootu nekk sax jàkk bu fekkonte ne dootu nekk sax ilimaan bu fekkonte ne day nekk daf ko nekkoon kon encore une nit koo xam ne ci fenn sos yee fitna ci la taalim réew ngeen di wooxu ay ay Juan Branco tubaab bu ndaw bu nekk France France marché manqué ci biir loolu nag mm. maa ngi ñaawlu ba fa mu yem mm. attitude boo F24 parce que imaginez li fi faatu ci nit mm. li fi yàqu ci alal kenn ci ñoom dénoncé wul lu mel noonu mais le plus grave gis naa benn responsable xam dafa nekkoon na fi directeur de la douane nekk fi candidat amu lu muy def dem def ci salle boo xam ne ab xale tubaab moo nekk di yàq dërëb Sénégal loolu c'est inacceptable kon encore une fois bu leen foyee réew mi si li ngeen di dem ni du liggéey bu ndaw du liggéey bu ndaw il faut di d'utiliser les éléments de langage yi nga xam ne moom la Pastef teg pour nëbb fen yéen fen Sénégal pour mucc ngeen di ko wax nit ñi naan way ay ay CPI CPI CPI CPI nit du porter plainte CPI mhm. dama la ko jàng boykee xamoo ko ak ñi ñuy déglu mhm. CPI mhm. waa CPI ñoom ñooy seet ku ñuy ja ku ñuy topp ku ñu du topp li nit man mooy xat ne dégg na musiba mu fa am réew ma mu am ña fa dëkk atte attewuñ ko nga signalé ko CPI maintenant li nga xam ne moom la état bu Sénégal war a def mooy topp Ousmane Sonko pour appel à l'insurrection terrorisme destruction des biens publics et privés mort mort d'hommes et de femmes loolu état bu Sénégal dana ci topp Ousmane Sonko balaa yàgg. Mhm. loolu moom yàkkam jëru yàkkam. alors mi ngi noonu euh, tey li ma la li ma li ma bëggoon wax rek mooy euh, dama dama bëggoon relancer si biir balaa. muy gën a ah, waaw damay ko ma coupé xam nga coupé